lu mat a leeral la. d'accord non xam nga xam nga xam nga 30 secondes rek. Mm-hmm. Mm-hmm. c'est-à-dire sànq mooy li ma wax ci marchand ambulant yi. Mm-hmm. réew mi dafa bëri ñuy wax tam te li ñu wax xamuñu ci dara. gis nga auparavant bu njëkk. liggéeyu assemblée nationale ca nañuy tënkee seen loi yeeg yëpp constitution bi moo ko doon régir mu leer nañ mais léegi dañoo dem ba constitution bi dafa jox assemblée nationale ne ko sa mbiru assemblée nationale jël leen ko seen bopp mais teewul constitution bi moo koy encadré constitution bi du préciser délai. parce que loolu compétence exclusivité boobu moom moo ko jox assemblée nationale ne ko yéen yéenay tënk délai. Mhm. c' est ça la réalité damay bañ a joxe date di fo di di faussé. bi nga mm. xam période yi nga xamante ni si lañ jëlee compétence boobu exclusivité boobu. Mhm. jox ko assemblée yi parlement yi. Mhm. loolu il faut que nit ñi comprendre ko constitution bi la mu man mooy ni. président euh, le premier ministre dina def déclaration de politique générale am. Mm. assemblée nationale. maintenant nag am na loo xamante ni moom daf ko bàyyi parce que bu ñu fàtte ni nous sommes dans un état de droit. et dans un état de droit la y a la hiérarchie des normes. quand même maintenant nag responsabilité boobu responsabilité député yi la parce que député yi quoi que l'on puisse dire waxuma ña bokk benn waxuma ñu bokk yeewi ñoo échoué. ci mbir mii lii fi am seen unique l'unique responsable c'est les députés. Mm-hmm. parce que ñoom la askan bi fal ni leen. dem leen assemblée nationale ngeen contrôler ñu l'action du gouvernement comment concevoir daf leen waroon jaral lu nekk. Amadou Ba du def déclaration de politique générale parce que c'est un membre de l'exécutif warul poser benn acte bi yoo xam boo xamee ni que dafay transgresser loo xamee ni que assemblée nationale tënk na ko ba bàyyi muy une loi euh, euh, organique. kon jàpp naa ni mais am na ay député yu woon ci situation boobu. waaw moo tax ma ni bañ ko alerter que ce soit muy Guy Marius concrètement dañuy wuyoo lañ leen la nga xam ne moom lañ leen tabee muy député du peuple mhm. daf leen waroon jaral laa la wax sax ñoom ñëpp ñu génn assemblée nationale ne député ne ne li euh, Amadou Ba du fi def déclaration de politique générale mhm. parce que seen sañ-sañ la askan wi moo ne leen contrôler leen l'action du gouvernement mhm. kon loolu moo waru woon a moo waru woon a jàll mais malheureusement nous en nous fois da ngay am des députés yu nga xamante ni jàpp nañ ni parti politique ba la mu bëgg rek loolu lañ ko war a defal mais encore une fois pour préciser constitution du tënk délai lu ñeel wàllum assemblée national kooku mbiru député yi la ñooy toog xool nu ñuy organiser seen liggéey. Mhm. ak naka lañ ko biggee mais constitution bi da leen di encadrer daf koy encadrer maanaam lañuy def yëpp dafay tënku ci constitution bi. kon le premier ministre aujourd'hui mhm. nee naa amul benn savant si adduna bi benn borom xam-xam bu ko mën a pointer le doigt si lii mu def. il est dans la légalité si li mu def nii. man je ne suis pas d'accord Ousmane Sonko di dem assemblée nationale sous la base document falsifié. Mhm. xanaa bu boobaa mooy. nañu discréditer suñu institution moom sa personne tey nga xam day incarner l'une des institutions les plus hautes mhm. na dem discréditer euh, euh, euh, sa sa personnalité mhm. kon jàpp naa le plus important c'est de trouver des solutions des circuits yu ñu mën a permettre que ce règlement intérieur là soit mis en soit mis en en soit mis en jour en jour pour que moom mu mën a dem assemblée nationale a def li nga xamee ni que mooy déclaration de politique générale am mais constitution bi moom la mu def foofu la yem de te mhm. foofu la mën a yem du préciser délai lu ñeel wàllu assemblée nationale moom encadré la ko lay def mais liggéey baak nañu bëggee doxaleek yooyu yëpp mhm. yoonam nekku ci maa ngi ñëwaat ci yow Ablaye Mbow ci lu mhm. ñeel beneen article aussi comme ni ko Thior junjee sànq article 87 bu constitution waxtu wi dafa mel ni dafa tere nelaw ab waa député yu nekk benn bokk yaakaar mooy article rek bi ñeel wàllum dissolution wu euh, parlement bi maanaam euh, assemblée nationale bi ñoom fas nañu yéene jéem a dox ay am euh, lu toll dayoo boo xam ne mën na tas assemblée nationale ca ba ma ko soobee. du du te du antu foofu. Hmm. en réalité du antu du fa yegg. parce que tamit. mais ñoom ñoo am xam nga majorité majorité da ngay wax majorité ban nga am. yow majorité bi bul fàtte majorité relative la. Hmm. te même bu fekkee ni am na picco picco ma picco mbaalo. mbico hmm, mbaalo mbico mbaalo. si diggante groupe parlementaire yeewi ba taxawu génn. je pense que am na loo xam ne pour des raisons politiciennes je dis bien pour des raisons politiciennes jàpp naa ni am na représentant du peuple. Mhm. s'ils s'ils sont députés toujours yoo xam ne du ñu entrer dans le jeu. bi nga xam ne ñenn ñi ñu ngi koy bëgg a doxalee. tu sais quand on dit dañoo war a mën a dem si indépendance su nu ko waxee séparation. séparation des pouvoirs mais yow 12 ans nga nekk fii mosoo liggéey si li nga xam ne moom ngay wax séparation des pouvoirs. Mhm. mais est-ce que tey ji nii nga war nga mën a wax séparation du pouvoir. Mhm. ba yow say moromu député yoo xam ne bokkuñoo ak yow kaa war la mën a ñëw jàppale si bu fekkee ne yow da nga mettre en en en en œuvre li nga xam mooy sa projet la. Mhm. mais je dis c'est projet pour moi boo xam ne warta warta mën mënta yegg. tànkoor mhm. gis nga lu lu dalloo constitution loi organique la loi organique bi bañ nañ ko ba doñ ko jox doole si modification si wooteem si nangam nangam. Mm. sur les cent 165 cinq Mmh. pour mu jàll il faut nga am 99 députés autrement dit 3 cinquièmes euh, euh, si li nga xam moo di li mu député yi. waaye léegi yow caution bi moo jox président prérogative te président fu mu toll nii moom il la le garant de la bonne marche des institutions. Mmh. c'est la clé de voute des institutions. donc loolu il faut nga mu dugg sa nopp. Mhm. yow la majorité qui est là. de 2012 à 2024 a été une majorité au-delà d'être mécanique une majorité électronique et numérique mm-hmm. loolu moo loolu moo fi nekk. Mm-hmm. donc yow posé wu day on n'a jamais ils n'ont pas posé les les les les véritables débats. Mmh. au niveau de l'Assemblée nationale. tey li nga war a mën a jot li nga jot si question question question écrite. Mm-hmm. ak li nga jot si li nga xam ne moo di wàllu jëm si ay proposition commission d'enquête yu demee noonu. Mm. defoo si benn. mustaam ci 12 ans. waaw jëloo si benn initiative. mais du tey nii nag nga war a mën a taxawee taxawaay goo xam ne effectivement boo ko defee rek dañuy xam ne tu es dans la communication politique. comme ñoom Abdou mbaw ni ñu nekk di bindee def ay. Euh, mbindeeg yooyu yëpp ci jubbanti assemblée nationale ak doxalinu nguur gi da nga yaakaar ni. dañoo non non fu mu toll nii mais attends si on reste sur les principes et par par par par par rapport à l'éthique et à la déontologie bi nga xam ne dënk nañ ko kii nga xam ne dañ ko ne yaay toogal askan wi foofu nga xam moo di pénc ma yow yaay woote loi yi yow yaa woote loi bi tax ñu ne léegi sàccum njur mi dañ ko criminaliser yow yaa woote loi bi ñu ne aujourd'hui viol dañ ko criminaliser yaa voté loi bi nga xam ne tux yàmbaa ça veut que voilà dañ ko criminaliser mooy relativement à la loi euh, kii Latif. Mhm. yaa woote loi yi nga xam ne moo jox sañ-sañ code pénal bi lii moo jox jox sañ-sañ nangam nangam yaa woote loi yooyu yëpp kon boog yow am na principe boo war a mën a taxawee si wàllu éthique si wàllu déontologie. Mhm. ak fi nga jaar pour askan dënk la baatam. dënk bu ñu la dénkee baat yow ngay nga nekk assemblée national ak coow yu fi am yëpp. Mhm. ak scandale yu fi am yëpp. pendant ces dix dernières année yi mbëkk mi nu mu taree woon yoonu Nicaragua bi nu mu nu mu nu mu jikki saa yi def nekk bum au niveau de la jeunesse ben je dis encore une fois quelle a l'initiative prise par li fi nekkoon majorité parlementaire mhm. su mu ne majorité parlementaire c'est cumulé à l'ancien régime bien mhm. sûr donc donc je dis encore am na loo xam ne moral du ko nangu. merci merci merci ci bi. bien ñu dellu si ci li article bi wax. Mm. article 87 de de la constitution. Mm. defe naa loolu prérogative bu président de la république la te Abdoulaye wax na ko. article 87 li mu wax dafa leer. Mm-hmm. bu assemblée bu ñu installé assemblée ba mu am deux ans. Mm. Euh, kii di président de la république am na droit jël décret. consulter d' abord le premier ministre defe naa Ousmane Sonko la actuellement. et le président de l' assemblée nationale muy Amadou Mame Diop jël décret pour dissoudre assemblée nationale fekk nag am na deux ans loolu prérogative am la euh, pour le moment nekk guñ ci dele boobu du ko mën a def euh, ñi nga xamante ñoom ñoo yor la majorité dit relative parce que du majorité bu demee noonu mooy ñu fare ci Benno Bokk Yaakaar euh, bu ñu fàttalikoo su ma juumalee c'était en 2022 ou 2023 comme ça ki fi nekkoon Macky Sall mu bëggoon na supprimer article boobu article 87 bi. Mhm. mais dañu opposé wu jotuñu sax dem ci vote ba ñu ah. retiré ko. ñoom ñëpp ñoom ñëpp a boole woon du sax waa Benno Bokk Yaakaar kese mais y avait Benno y avait Taxawu ainsi de ñoom ñëpp. Mhm. ci couloir yi parce que j'étais à l'Assemblée nationale pour couvrir plénière mais li nga doon dégg mooy d'accord ñu loolu lañ doon manifester. Mhm. pour sauvegarder seen intérêt. defe naa ci dynamique boobu lañ nekk mais dañ cee rax nag la gatsa gatsa de la motion de censure mm-hmm. parce que ku ne xam na ne majorité bi actuelle seen relation ak nga xamante ne moom mooy le chef du gouvernement ki war a taxaw seen kanam def la déclaration de politique générale mm-hmm. demeewul noonu ñu ngi koy woo pour mu ñëw bu ñëwee c'est sûr et certain qu'ils iront dans le sens donc d'une motion d'une motion de censure mm-hmm.